thyroïde, maladie gastrique, ulcère, estomac, colopathie. Vous êtes diabétique ou asthmatique? Trouvez votre remède chez Sun Home. 77 127 19 53 76 492 110 48. Demandez Madame Diagne. Infection pulmonaire, sinusite et autres formes de pathologies liées aux nerfs. Douleurs lombaires, nerfs sciatiques, arthrose, problèmes conjugaux, éjaculation précoce, problèmes d'érection, infertilité. Sun vous apporte une solution sûre et efficace à toutes vos maladies. Contactez 492 70 48 demandez madame Diagne seen xom une utilité pour mbokk dama ni taamul seen xom moo gën sa wérgu yaram ndax li gën si yow moo la koy jox seen xom di barabu fajukaay bi nga xamante ni la muy faje doon na gàncax gu wóor te nag am efficacité baax loolu sa wérgu yaram am nanu machine bi nga xamante ni buñ ko tegee sa yaram lépp luy jàngoro dina la ko wan su ko defee nga mën a xam fi ngay teg sa tànk mën a faju ba faaw seen xom moo lay yembal daal lépp luy sa wérgu yaram mën ngaa woote si numéro bii di 77 127 19 53 77 127 19 53 76 492 70 48 76 492 70 48 laaj ci madame Diagne médecine chinoise bii di seen xom di 100 pour cent bio dina la yembal ay traitement su ko defee nga mën a aaru si jàngoro yi di constipation ballonnement hémorroïde ngeen amee problème gastrique ulcère estomac colopathie ngeen doon diabétique wala asthmatique ngeen bëggul leen faj selum gën gaaw gaaw jokkoo leen ak numéro bii di 77 127 19 53 77 madame Diagne bu ngeen amee infection pulmonaire sinusite wala mboolem jàngoro bi nga xamante ni laal na si wàllu sidit ay douleur lombaire nerf sciatique arthrose bu ngeen amee jafe-jafe si biir kër gi lu si mel ni éjaculation précoce yëgatu leen seen bopp si biir kër gi war ngeen bëgg am doom mu tëleen seen xom moo lay indil solution bu wóor te gaaw si mbooleem jàngoro nee naa la wooteel si numéro bii 77 127 19 53 77 127 19 53 76 492 70 48 76 492 70 48 laaj ci madame Diagne moo yembal lépp lu nekkoon seen jafe-jafe si wàllu wér-gu-yaram